danoo root si woon ku sandaa fees da ngay ñibbi 94 Walfu Sénégal dellu si di leen char di char mboolem kuy topp Fall 94 Walfu Sénégal seen analyse chronique yoo xam ne leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajafal na leen char na leen way leen di topp Fall 94 Walfu Sénégal Bougane soxnaam si nga xam dafa wàcc liggéey soxnaam si nag nekkoon doomi Thione Seck soxnaam soosu nag moo wàcc bi liggéey ginnaaw ba nga xam ne feebar bi euh, euh, daaneel na ko voilà fii nag yaakaar naa ne moo xam mag la moo xam ndaw la moo xam góor la moo xam jigéen la képp ku sandaa fees daal da nga ñibbi suñu borom nim ñu fi indee woon noonu la ñuy delluwaate fan jóge woon wala kon daal yaakaar naa ne kenn ku ci nekk na koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kenn ku ci nekk ak na muy ñëwee ci yow wala dee moom euh, yaakaar naa ne ba ko suñu borom bindee nga xam ne moom la suñu borom njëkk a bind voilà nga xam ne moom la suñ njëkk suñ borom njëkk a bind kan yaakaar naa ne ku mos dund daal danga nga mos dee voilà kan nañ ko xam bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi koy jaale nag bugaan di ko jaale mboolem képp koo xam ne rek mbokkum bugaan nga di ko jaale sénégalais yëpp waaw mu ngi noonu adduna ngi noonu ad dem adduna demal maa ngi ñëw la rek voilà kenn ku nekk daal na koy bàyyi xel bu baax a baax a baax kenn ku nekk xamal ni sa bis dina ñëw Euh, euh, euh, nga dee comme ñeneen ñi ni ñu dee waaye nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax lu naqare la nag lu metti la nag waaw gën a bees la moo fi nekk rek waaye ku ci amul yaay am ci baay ku ci amul baay am ci rek ku ci amul rak am ci doom ku ci amul doom am ci ndijaay maanaam daal dee bàyyiwul kenn waaw kan nag yàlla na yàlla yërëm ko te jéggal ko yokk ay leeram ak mboolem jullit mu fa fekk ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ànd leen ak Fall 94 Walf Sénégal